gars yi Guardiola mooy bandi Guardiola gis ngeen ni mu naroon def Barça Guardiola nekk mu ngi doon coytu di jéem a lonkal charme kooku di Frenkie de Jong préparé woon na euh, ëllëg bu gën de gaan bu yàgg salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu leen ku ci nekk seen tur seen sant tey jii xëy ngeen jot ci ay xibaar que ni kooku di Frenkie de Jong Manchester City actuellement daf ko bëgg bëgg na ko loolu te it kafu ci réewu ci ngir war a mën a euh, indi ko ci club boobee euh, ci euh, mën naa ne absence su gën a gaan boo xoolee ak Declan Rice mi nga xam ne mu mu cee am réussite malgré Frenkie de Jong mën na football comme sentinelle mën na football comme numéro 8 mën na football comme numéro 10 milieu terrain bu polyvalent la vraiment te nga am genre joueur yu mel noonu Guardiola yore ko loolu leneen la ñuy waxati Guardiola nag ci benn match bu Barça amaloon ak Manchester City si je ne me trompe pas États-Unis la woon match kóllëre la daal xaritoo ci nee ba match bi jeexee foofu la ko doon jéem a eh, waaw di ko jéem a tooñ koy malgré Frenkie de Jong sax dafa xawoon a dëgër as tuut fekk si woon ci mbalag yeeg dóorante yi mu doon def ak moom mu ne calme rek nuyu ko ñoom seen waaye it ba nii actuellement Guardiola dafa bëgg gën a googee te Guardiola képp ku mu jël rek xam na ne am na lu muy waajal yow. bàyyi na leen a gën a gaan nga xam ne dépassé na trente mu jël ko ne gi nga xam ne mu ngi ci ay vingt trois vingt quatre côté yooyu noonu da koy defar nag pour avenir bu ko defee mën na def ba meilleur sax gën a gaan kooku yor eh, ci tànk yu doon kër daal la jaar ba tax mu war a mën a eh, tegu ci yoon bi mu ngi noonee gars yi ma leen di xaar ci commentaire yi est pare ngeen pour jaay kooku di Frenkie de en tout cas Manchester City a a a United doon na ko jéem a eh, coytu ba sonn moom mu ne dafa lànk foofu la bëgg a toog waaye jamaatuñ foofu ji ñu toll nii malgré saison bee passé Barça pare woon na pour teg ci marché mais jamono ji Barça dane ne euh, dañu bugg koo jaay sañoon dafay toog waaye peut-être bu gisee offre bu baax a baax kenn xamul ma leen di xaar ci commentaire yi ba xam loolu ànd ngeen ci bu baax a baax catalan yi merengue yi nag damay jublu ci yéen wax ci kan kookee di Toni Kroos moom nag génn na bay leeral que ni moom li mu gën a bañ actuellement nii bu demee ba di ko am rek dafay jóge foofee ca Real dama di waaw muy lan toog ci banc maanaam terminé euh, carrière am fee ci Real de Madrid ci banc bi nee na loolu bugg ko malgré recrues yu bëri nañ waaye li mu bëgg mooy bu soñoon dafay titulaire te it ñu ngi xalaat que ni 2024 bi di ñëw narta toog dafa nar a jóge baax sax ci 2024 2025 narul toog baax euh, Real boobu du moins waaye nag prolongé contrat am un an 2024 lay. expiré juillet juin 2024 ñu ngi xaar nag ba xam dafay jóge ou pas nee na daal bëggul di toog ci banc bi bu na dee terminé carrière ci toog ci banc moom vraiment dafay xooli leneen kookee di Toni Kroos malgré ku bëgg Real dama rëcc génn nag ba di leeral loolu ba tey nag dañ leen di leeral info mercato à temps mu ngi noonee Liverpool nag c'est officiel officialisé na joueur euh, bi hongrois hongrois boobu ñu naan ko a euh, Dominique Soboslai Euh, Savos Ley moom mi nga xam ne barki démb maa ngi doon annoncé que ni Liverpool déclenché na euh, clause libératoire am boobee soixante-dix nag le prix bi euh, transfert bi mu ngi noonee démb bi maa ne annoncé woon que ni dafay def visite médicale am ci jour boobee finalement lépp ànd na lépp mm, waaw allah daal kooku di Dominique doon na nouveau joueur de Liverpool le militaire bi nga xam ne Leipzig foofee la jógee kon nag les Reds bonne nouvelle à vous Manchester City nag actuellement gone ko nga xam ne ni mën naa ni. jot nañ ko euh, recruter U16 Angleterre la euh, booy bi nag mën naa ni gardien de but la dañ koy mujjee yóbbu na académie ah, mu ngi noonu eh, Skype eh, moom eh, jamono ji daal foofee ca Manchester City fa la war a mën a dem ci seen petite bi kookee di nag moom mbébétam ak gis-gisam mooy que toog foofee ca dem fële ca Benfica daal moom mooy mbébétam Benfica képp la gis amul leneen moom rek rek rek la soxla pour war fa mën a dem di leen leeral que ni Tottenham nag fexe na ba déclenché clause libératoire Pedro Porro moomee nga xam ne nag da ko aaloon ko Tottenham Sporting moo ko aaloon Tottenham actuellement officiel joueur Tottenham la 40 millions d'euros moom la ko Tottenham foqatee mu ngi noonee di leeral que ni Inter bi nag seen président bi George Mas moom nag génn na bay leeral que ni euh, Lionel Messi ñëw na foofu waaye duñ jam foofu ci star euh, football planétaire yi nee na espéré na recruter yeneen joueurs yoo xam daan nañ ànd ak Lionel Messi ku ci mel ni Jordi yoon bi waaye xamuñu nu muy mujjee kooku Luis Suarez ñu ngi ñoom bëggoon nañ ko pour mu war a ñëw ñu ngi ci def seen kéem kattan ngir mu war a mën a ñëw foofee wëyal bu baax a baax mu doon ñetti joueurs yoo xam ne jot nañoo nekk Barça def ay jaloore am solo actuellement Inter Milan bu Beckham ñooñu noonu lan bëgg pour ñu ñëw foofee woy <laughs> les Gunners Kylian Mbappé fële ca Arsenal eh, salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant man daal da ba tas moom kay sama abonné yi ndeysaan dama leen bëgg sax waaye yii man du ko faral sax di relayer saa ñu xëy rek ak xibaar giñ may laaj lii loo ci gis ak ñoom seen parfois nag gars yi faaw ñuy xam ne ne rumeur dafa am ak euh, mercato ak transfert boo xam ne c'est confirmé discussion am c'est confirmé Kylian Mbappé ca Arsenal ay rumeur la vraiment waaw mu ngi noonee ñenn ñi sax si commentaire yi après ma ma dem ba recherche xool ci publication yi nga xam ne jot na fa am euh, ko a a naan Kylian Mbappé actuellement en ce moment mu ngi jàng anglais pour jéem a xool nu muy waa Arsenal <laughs> gars yi nag xeeb ngeen Arsenal ah. mais Arsenal war naa mën a teg proposition Kylian Mbappé mooy loolu mais nag la c'est pas vrai c'est pas confirmé et tout mooy loolu quoi jamono ji Kylian Mbappé discussion bu sew bu sew bu jot am am euh, wala PSG discussion bu sew bu mu jot am ak ak Kylian Mbappé ci transfert am c'est Real de Madrid Liverpool daaw doon na ko jéem a doon na jéem a nappaate as tuut mais reculé wu na dugg ci ren ji sax proposition bi ñu wax amul 300 millions d'euros yooyu yëpp amul jamono ji daal Real de Madrid képp moom moo ci discuter ak euh, mën naa ni PSG ak moomee di euh, Kylian Mbappé muy noonee da ngeen di réew a tas day gënal si moom mais c'est pas confirmé ay rumeur rek mu ngi noonee pour ngeen xamee ko noonu ba tey dañuy nekk ci euh, xibaaru tey ji mercato bi continuité lay doon Liverpool googee nag nga xam ne ñu ko doon wax sànq jamono ji joueur bu mag a mag nar naa ñëw foofee seen club artiste ñu naan ko Dominique euh, Zobos léegi moom nag mën naa ni euh, toj na laay sis daaw ñu ngi ko war a euh, clôture muy war a doon cent dix millions d'euros vendredi bi passé la ko Liverpool déclenché kon nag mbir yi lépp antu na accord am na ci ñaari club bi accord tamit am na ci euh, joueur bi ak kookee di tey jii la a def visite médicale am fële ca Marseille euh, visite médicale bu ko réussir rek incha allah ñu officialiser ko mu ngi noonu kone googee euh, ñu naan ko Dominique bu loolu weesoo dinañ leen leeral que ni Conor Cody moom mi nga xam ne annoncé woon nañ leen ne dafay jógee Everton dem Leicester actuellement c'est officiel jógee na Everton dem na Leicester ci deuxième division anglais mu ngi noonu lépp. mat na ci kookee di euh, Conor Cody kon nag ñi leen jotoon wax ñëpp dem nañ macha allah yamaatuñu foofu Paris Saint-Germain googee nga xam ne fa la Kylian Mbappé euh, ñu ngi si euh, yoonu jéem a xool gone gi nga xam ne moom lañ bëgg a recruter noonu mu doon gone gi nga xam ne moo nekk fële ca Olympique de Marseille Olympique Lyonnais waaye yamaatuñu foofu Leipzig sax mu ngi ko bëgg a jënd ñu naan ko Bradley ah, mu doon gone gu am fulla te it mën la muy def kon nag c'est a suivre ñu ngi xaar mbir bi nan lay demee waaye yamaatuñu foofu Wolfsburg ak Bayer Leverkusen ñaari club allemand yooyu ñu ngi ci yoonu euh, teg nañ ay sax pour war euh, jënd gone googee di Lovro Mazer moom mi nga xam ne mu ngi nekk foofee ca Stade Rennais yi mu ngi daw xamuñu nag ñaari club yi moo ko war a mën a jël lépp lu ci mënti am rek di ngeen ci euh, jot ci njëkk ak teranga Harry Winks nag jóge na Tottenham googee dem de rejoindre Leicester mu ngi noonu Leicester nag danoo bëgg a monter waat tegwaat ci temps bi waaye yamaatuñu foofu gars yi leen leeral que ni gardien de but boobee nga xam ne moo nekk foofee ca Dinamo Zagreb actuellement Villarreal ak Fenerbahçe ñoo ci teg tànk ngir bëgg koo jënd malgré Fiorentina njëkkoon naa teg offre six millions d'euros waaye Dinamo noonu convaincre ko noonu euh, taxawagu ci euh, de but bi nga xam ne mën naa ni jamono ji euh, mu ngi def lu dara ko Dominik bi Timothy Weah mi ñu leen annoncé woon mu ngi noonee waaye a intéressé mooy salaire bi muy laal ci niveau bi millions d'euros chaque an loolu c'est énorme ñaanal ma pour sa jeune jour boobee nga xam ne mën naa ni tollul niveau boo xam ne nii euh, man man xalaatoon naa ne war na mën a am lool ci salaire waaye mu ngi noonee kaay yi di leen leeral que ni euh, Alex Mateos Chelsea après bañ euh, officialisé kooku di Alex Mateos actuellement ci Diego Moreira ci lañ nekk nii pour signer ko contrat longue durée Chelsea daal jamono ji mën naa ni ci xale yi lañ miser ngir préparer seen avenir na jour yu mag ak euh, grand jour yi bàyyi yëpp bëri na trop ñu ngi miser ci xale yooyu nga xam ne euh, ñu ngi def lu dara a jarul ba tey Chelsea euh, signé na benn talent U17 ñu naan ko Matthäus Norwich nag foofee la jógee lépp mat na mu doon gone goo xam tamit ko am avenir la maa ngi xaar nag mbir mi nan lay demee Chelsea daal am nañ fit daal am nañ fit trop trop trop gone gi 2004 la judd mais actuellement seen mercato bi ay xale rek rek rek lañ jënd waaye di leen leeral ni Tielemans signé na foofee ca Aston Villa Tielemans nag mu ngi jugee Leicester nga xam ne wàcc na deuxième division bi la terrain euh, belge bi mu ngi noonee tamit ñu xaar tamit ren jii lan la war a mën a wane gars yi loolu nekkoon xibaaru mercato ci journée bi di leen xaar ci commentaire yi euh, nan ngeen ko gisee ak les Gunners ba ngeen gisee photo Arsenal bi ak euh, Kylian Mbappé nan ngeen ko gisee képp koo xam nag abonné ko suñu chaîne YouTube demal YouTube nga bind Pa benn yoon ci seen vidéo merci